internautes yu Dakaractu nuyu nañ leen amaat nañ mbégte bu baax àndaat ak yéen si seeni émission bi ñu duppee Actu Débat te ñu koy amal si semaine bu jot si seeni chaîne d'information bu Dakaractu TV tey nag ñu amaat mbégte bu baax a baax wàccaat si lang gi tey ñuy dalal ki nga xamante ni moom moo nekk euh, Papa Massata Diack Papa masata Diack nag peut-être ku ko gisul tamit dégg nga turam alors moom moo nekkoon ex conseiller en marketing bu i 2 mooy euh, fédération internationale d'athlétisme. alors mom mo nek également euh, directeur général bu Pat alors directeur euh, ex conseiller en marketing ban titre nga bëgg ñu discuter tay ci émission bi. ah li ma woy woowee affaire fa nga ma woowee. <laughs> Mhm. moom la ñuy discuter inshallah d'accord mm. am nañ mbégte dalal la ci Dakaractu. Eh ben, man tamit am naa mbégte. ci mhm. di nuyu Dakar actu ak auditeurs yi. Mhm de remercier ci invitation merci alors Papa Massata Diack euh, justice bu française a un euh, verdict verdict le procès bi nga xamante ni moom moment nous ñu duppee ko affaire I2AF Nous avons ci ay soupçons de blanchiment de capitaux. mu avons loo des ay athlètes yoo ont ni jàpp nañ ne dafa am genre euh, corruption bu dugg ci biir alors verdict bi ñu joxe ko ñu ne nañ ans de prison. Euh, teg ci sa ndodd euh, mandat d'arrêt international teg ci yow tamit ben amende amende bo xamanteni ni toll na si un million d'euros yow nan ngay dundé d'abord verdict bobu ñu joxé eh bien xanaa déglu leen rek parce que dañu nek ci sen logique bo bok tay juróomi at yi dégg nañu tuuma bu nek li ma si njëkk euh, déplorer rek moy permettre ñu sama avocat ñu présent Paris ndax dama demandé ñu renvoyé procès bi hum. janvier bi ñëwoon nuñ fa hum. maître Moussa Sarr euh, ak euh, ñu constitué wu ñu procès pour six mois. Hmm. Euh, mois de juin bi ñu ne dal mënuñu xaar ba samay avocat alors que ci mois de janvier, bi dañ samay dossier hmm. ñoo yegg ñu saytu tok luñu benn saytu ko. Hmm. alors lima ci ñëk déploré lama leen tontu ci commission rogatoire bi 35 questions yima leen tontu. eh ben ko tribunal bi dugaluñ ko ci biir dossier bi pour mën ko joxe comme justificatif. ci limay may toog jëluñ ko en compte. jëluñ ko en compte loolu dafa leer même pour sama kaw papa foog naa ne ay avocat lolou lañ wax ñu ne amul ben argument de défense bi bu tribunal bi jël tribunal correction bi jël en compte. Hmm. donc c'est euh, une décision c'est une logique liñ nek mais nak première instance la boba dañuy dañuy def d'appel rek. Hmm. seen logique lañ nek ça veut dire. moy que dañuy acharné wu. ah bon waaw ah, ah, acharnement donc la jàpp nga procès bu mel ni war na mën a am lu lu ñu duppee acharnement acharnement donc la procès à charge la ndax amul benn euh, élément de décharge bu ñu jël en considération euh, mais jël benn cas droit de télévision yi ñuy wax naa ne six millions d'euros la daf ko ci ordonnance de renvoi du dëkk hmm. un million deux cent mille dollars te Essar Gabriel a ko donc euh, procès à charge la alors et puis acharnement médiatique biñ biñ ci boole alors du dara loolu <laughs> acharnement. comme bu ñu déggee nga wax dafa am ñu nekk si ginnaaw loolu nga bëgg a wax acharnement bii nii. loolu justice française bi ko soogee euh, agence mondiale antidopage moo nekk ci ginnaaw acharnement. ah oui ah, tout à fait. Richard William Pound moo déposé dossier bi. am nga ay éléments de preuve si li ngay. wax naa ko euh, su fekkee ne fekk nga sama conférence de presse euh, présenté naa ci tableau bi jox tous les éléments de preuve <laughs> am naa dossier pénal bi donc ñi def dénonciation bi waa agence mondiale antidopage la. Hmm. donc nag loolu ñuy wax yëpp ay ay tuuma la ndax amuñu benn preuve li ngay wax naan ay option ay at la dañoo joxe dara. Mhm. Hein? loolu yëpp jot nga ko jébbal justice française bi. dama tontu tontu naa leen <laughs> tontu naa leen loolu question justificative. Mhm. Euh, ci yoon. Mhm. da ngay xam dara daw da sa accusé yow mi accusé yaa indi preuve indiwuñu benn preuve procès bu amul preuve amul dara. <laughs> amul benn preuve benn virement mais bu preuve ça cause problème nan la ñuy def ba lay daan ay. 50 ah, prison parce que euh, su leen neexee seen ah, ñoo ko tey. da nga gis yow eh, liir nga délibéré bi yow liir nga. am na lu ma ci jotee daal ko ne doo sa ko liiroon <laughs> doo wax li nga wax. amna luma lu ma ci jotee dama ne li sa liiroon en preuve en virement ban banque lañ ko dugal xaalis boobu wan athlète eh, auditionné wuñu athlète du anum. donc dañu jàpp benn partie si si si procès bi rek ñu bàyyi ñeneen ñi ñuy wax. dama ne ñi ko sooke nekk ñu foon Richard Pound mi yóbbu dénonciation bi ñëwul ci procès bi Craig Reddy.

je pense qu'il y a assez d'éléments pour nous disculper mais dañu ci logique alors nous at mhm. la lu y yow eu la ñu a indépendant dans la presse mhm. euh, affaire Beckenbauer Platini Blatter da la presse mhm. non d'accord euh, mais état d'esprit euh,

cinq ans quel que soit mandat. waaw dama ma la euh, ci yoon dana am yoon euh, su fekkee ci yoon lañ nekk. Mhm. danaa fa am dégg amu ci benn benn jàq-jàq. te yow yaakaar nga que ni war nga mën a am dégg tamit. waaw lu tax <laughs> ci yoon lañ nekk bu pare fii ci Sénégal. Mhm. ñu ubbi nañ fi enquête danañ ma atte dossier danañ ko jébal Sénégal. alors boobaa lu ñu mënti def tamit danañ ko jébal Sénégal. Mhm. donc nag boobaa dëgg dana fee. dernier moom Sénégal moo koy moo koy. Ah, mais euh, citoyen sénégalais la. Mhm. <laughs> am na convention judiciaire bu nekk entre France et Sénégal. Mhm. D'accord. 5 ans de prison am ñu jàpp ne boo gisee ñu daan la ko texte si sa mandat d'arrêt international c'est parce que teewoo won si procès bi loolu bokk na si sévérité bi nga xamante ni moom la verdict bi joxe. loolu ci ah, am na ñu koy wax mais nak le problème mooy dama foog ne acharnement bi euh, depuis le début ci ci sama personne mom.

si say perspective investissement yi nga def ban perspective déedéet kooku mën nañ ko teg de côté ba li jëndi li amul dal mu yàq dar d'accord man buma déggé sa saa su ne ngay wax ci radio bi wala ci télé bi da ngay nan am na ñu nekk ci ginnaw ño xamanteni il cherche à te nuire ñan nga bëgg wax mais lolu ñom xamnañ seen bop ba paré wax naa ko si justice bi wax naa ko ci procès bi wax naa ko mu lér nañ agence mondiale antidopage la ak ki wutu sam pap Sébastien ko ñoo bokk métier ñoo bokk la ñuy la ñuy liggéey ay agent marketing la ñuy ñaar jëm xam naa ne ci logique am mooy su ma jëlee IAAF li ma njëkk a def mooy liggéey de masat ci logique boobu la nag nag. waa waa agence kon ñoo dañoo ñëw pour effacer leen une bonne fois. déedéet effacer Lamine Diack liggéey man awma ci solo man nekkul woon président IAAF conseiller rek dong laa woon. Mhm. alors Lamine Diack li mu liggéey ci 16 ans lañu lañu bëgg na saxal alors duñ ko bëgg a suul jëfam mais nag loolu moom.

maa leen doon jàppale wutal naa leen lu tolloog huit milliards ci diggante 2007 ak 2015 donc nag te ñooñu amatuñ ko. Mhm. ñoo ñooñu ñooñu ko soxla woon. d' accord alors li ma déggee ngay wax tout à wax nga euh, ba ne dernier moom Sénégal moo koy mujjee parce que citoyen sénégalais nga ça veut dire que tey euh, soxlaatoo dara bitim réew génn wuuti leen. déedéet France ak euh, dëkk européen soxla su ma mais mën ndaa dem ci dëkk asiatique dëkk pays arabe yi fu ma neex dem. moom euh, suñu atee boo am dëgg fu ma neex dem. loolu moom ah, mais fu mu nekk nii kay présentement moo tax. dama nekk ci contrôle judiciaire donc contrôle judiciaire kenn mënu fi génn. donc nag yooyu ay waxu na nga dem doo dem nekkul donc depuis 2016 maa ngi fi donc nag euh, te taxuma ak maa ngi dund. d' accord maa ngi dox samay soxla. d' accord euh, Papa souvent dañuy dégg Sénégalais dañuy wax yaa ngi dégg souvent nga dem yow nga nekk un fervent talibé mouride tey nga sant Diack nga dem ba dégg seen sant bi. ñu mele leen si affaire yu mel ni ñu leen di tudd genre corruption lan la lay def moralement. mais tuuma tuuma tuuma asgor bu ne euh, tuumaal lañ ko fi. waaw mais xam nga tuuma dafa garaaw tuuma fu a yéegi. mais mais da nga koy setal <laughs> da koy setal day set. mais lan la lay def moralement. dama ne amul dara lu may def euh, loo loo def euh, amul lu mu lay affecté loo xam ne wóor na la defoo ko. nga xëy ay journaux internationaux di bind.

tuumal ci sport moom loolu du ci dara. dafa am bari ingratitude rek bu nekk ci sport. sax hmm. koo defal ba mu jekk rek. Hmm. xam naa damaa damaa tàng dox dox rek koo defal ba mu jekk yow la njëkk a mat mooy li ñu naan ku boot bukki. Hmm. bukki kii la xam nga ni ñu koy waxee. xañ mbaw la xañ mbaw la. Eh loolu moo loolu moo loolu moo ñu dal fédération moo ñu dal ci football Sénégal. mais seen sant bi tout le temps ñu gis ñoo ngi melew si loolu. loolu tamit dama ne suñu sant ñëpp ñu xam bu fi nag di wax nag loo xam ne. Mm. nekkul yow yow yow mi ñu wax loolu. dama ne yow yow mi yow mi ñu wax loolu xam nga ne Sénégal. Mm-hmm. suñu sant mënu fi nekk lié à la corruption. Mm-hmm. Lamine Diack fii la nekk. cër yu nekk ndomba tànk am na ko man mii. Mm-hmm. cër bu nekk am naa ko fi nga naan mooy justice internationale sama la fa nekk ci lu tubaab wax. sama la nekku ci lu dëgg

da nga naan ay. tuumaal nañ la tuuma lii la. Ah, jeex dama ne droit pénal. Mhm. su euh, ma wax la ko ci tubaab. Mhm. la charge de la preuve appartient à celui qui accuse. absolument alors kon anu anam. ma kooku Massata Diack euh, nan nga gisee taxaway état du Sénégal ci procès bi. mais tool fa kàll ma respecté nañu sama droit citoyen yépp tay li ma ci dégg yépp tamit ñu euh, defal nañ ko sama bay ma ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. Mhm. ñu ngi ci jamm mais nañu jamm ñu ngi dox suñu soxla ñu ngi defal suñu bopp. japp nga ne état bi def na lu mu waron def. mais absolument parce que euh lu ñuy def man duma ko xam man suis ci état fonctionnaire alors je suis un homme du privé. Mhm. je suis une affaire judiciaire qui concerne un privé. Je tous les moyens pour nous défendre respecté nañ ma ma sécurité urbaine enquête tous les preuves. Mhm. document

d' accord mënul nekk premier ministre wax ko assemblée nationale ni représentation nationale dégg nga lu moom wax Ahmed Ben Abdallah Dionne wax. Mhm. dégg nga ko. tout à fait. Ah, kon nag euh, loolu lan moo gën a leer. Ah, la mu gën a officiel. peut-être yow. amul dara lu mu ci na dem na amul lu mu ci naataable. mën naa mën naa xalaat lii. aw ma lu ma ci naataable Daouda li ma li ma la wax. lu leer naññi la tontu naa la. da nga ma ne état Sénégal man la premier ministre wax na ministre bind na doy na sëkk. d'accord voilà d'accord alors euh, yaa ngi wax si benn document bu ma lire euh, am na fu paa bi wax ne. Euh, argent ça a servi euh, de financement euh, de campagne politique leader ci Sénégal ci contexte bi ñu yow non, noko gissé ay la <coughs> amul preuve bi wax. dama ko du non, wax mais Dakar Actu lañ le 22 décembre 2015 TFM

tubaab tàmm na fen. d' accord tubaab fen moom tàmm nañ ko du lu bees du ne gulet. d' accord eh, jàppoo ne Pape Massata li Sénégalais di wax euh, yow nga nekk euh, xale bu góor macha allah tey sa papa nekk France yow nga nekk fii si Sénégal Sénégalais yi dañ koy wax souvent ñu ne Pape dafa ñëw Sénégal baay papam France yow loolu ça te fait quoi exactement buñ koy wax. mais ma ñëwuma Sénégal man fii laa dëkk ñu naan ma réfugié wu Sénégal fan laa réfugié Sénégal man ma dëkk fii dem yow moo tax xamuloo hmm. nit ki da ngay gëstu. fii laa dëkk 2001 la fi dëkk man agent marketing fédération fii daay voyage sama soxna ak samay doom fii lañ nekk. ñu jàpp ne yow tey problème boobu bu amee sa papa nekk France war nga dem seeti ko. lu dama koy wuy ji. je suis pas justiciable dama ne doo doo sama koy seeti moom la ñu piégé jàpp ko alors léegi nag duñ ko sànq man may dem di sànku ji su amoos nga yéene ma ko. da nga yéene ma sànq ya non non même kon nag kon nag jeex na li nga may wax nii mënu mënu nag yow mi suloon yow doo ko def Sénégal yi seen bopp ñoom dama ne sama sama sama yoon ci li Sénégal yi xalaat mhm. yow laa wax sa su doon yow doo ko def <coughs> duñu sànq sa baay nga jóg di sànq ji ci ci sa yaay noonu ni ko la souvent dañu dégg nit ñi dinaa ah oui euh, parce que lañ nekk Afrique la famille euh, dañoo tenir dama ne lépp lu lépp lu war sama diggante ak sama baay maa ngi koy def lépp lu ci war

loolu yow yow ubbul sa xel moo tax war ngeen yéen journalistes yi ngeen di saytuwaat di gëstu noo leen di liggéeyee. Mm-hmm. xam nga li ñaan parallélisme des formes. Mm-hmm. soo waxee lii gëstoo lii da ngay gëstu lii voilà da ngay gëstu lépp. Mm-hmm. waaw lii da lay wan ne Lamine Diack ak Massata Diack. la ñu bëgg jéem a toroxal. dañ koy jéem waaye yàlla dogalu du am. D'accord. voilà ah. D'accord. accord peut être citoyen nga lolu duñ la ko ñaanal li la top tay néewta lo xamanteni lu gënal sénégalais yi la parce que citoyen sénégalais la alors euh, ñu bëgg xam tay ban taxaway nga am ak paa bi si si si situation biñ nek. mais lolu sama diggante ak mom la lu may wax ci public bi jaru ko. moom xam na xam na yàlla yàlla mi ñu gisee xam na ko parce que sénégalais tam xam nga dañuy wax. dama ne dañuy soxla xam. dama ne loolu soxlawul ñu koy xam c'est une affaire tout à fait privée entre ñu ñaan yoonu kenn nekku ci. d'accord sa relation ak état du Sénégal. alhamdulilah citoyen bu ñu respecté la jeex na amul benn relation spéciale. président Macky Sall. xaw ma ko xaw ma ko. je ne connais pas personnellement xaw ma ko. Vous ne sais pas ko un eh président pas bi ñu relation personnelle. Euh, amicale bo boobaa ngeen manifestation euh, politique bu mu nekk wala activité nous, loolu ñëpp xam nañ ko man man sport la bokkuma parti politique bokkuma benn activité aw ma dara ak administration. Mhm. je suis pas un agent de l'administration, je suis pas un. Mhm. homme d'affaires qui travaille avec l'administration. donc loolu euh, su la neexee xam ko. d' accord te tey nan ngay dundee euh, sa toogin sa nekkinu Sénégal bien vrai que yaa ngi koy wax tout à l'heure euh, doomu Sénégal nga yaa ngi fii si Sénégal mais mënatoo mënatoo génn yaa ngi nekk sous contrôle judiciaire noo koy dundee. parce que di doon génn di voyager di jël. Euh, avion yi di dem di lidianti euh, say say say affaire say entreprise tey nga dem bo togat Sénégal. mais dogol yalla jullit la nat nattu day dal doomu aadama bu nekk da nga koy nangu dara avancé mais taxuma <laughs> maa ngi sant yàlla ku ma gis xam ne maa ngi sant yàlla du sama gisee xam nga maa ngi sant yàlla. Mhm. kon nag <laughs> jàppal la maa ngi sant yàlla. impacté wul dara ci say. Euh, da amul impacté wul dara ci sama <laughs> sama dund dara dara. maa ngi dox fu ma neex dugg fu ma neex dugg amul benn problème.

avocat yëpp ko wax ñëpp interjeté appel docteur Dolé interjeté appel ki kii nga interjeté na appel Habib Cissé ak euh, Pape Masta Diack Lamine Diack interjeté na appel donc nag mooy kenn nangul dogal bi donc loolu jarul sax élaboré. taxawaay avocat yi lan lay. macha allah bés bu ñu yeggee foofu samay avocat moom wóor na ma wóor danañu am ndam. jàppoon ne bii mooy gën a métti bi ñu génn. ba bii ban. appel bi ñu bi ñu jëm. mooy gën a métti au contraire appel droit la ñu fay wax. Mhm. cour d' appel. Mhm du ay affaire sensationnelle yi xewoon pour d'appel ay magistrat yu xarañ yu chevronné yoo xam ne droit la ñuy lire am nga droit pénal mhm. da ngay tuuma tout à fait indi ay charges ñu instruire mhm. indi ay preuves amul ci dossier bi kon nag sama xel su dalulee kañ lay dal sama xel dal liñ ñuy tuumaal defuñu ko mhm. charges yi ñuy wax gisuñu ko ci instruction bi daf instruction pendant quatre ans et demi tey dañ la muy njàg di nga ko téye ba pare di wut ay preuves d'accord mais indiwu ju preuves ci tribunal maa ngi dégg ay wax ju sew sewaan ay. Mhm. Euh, papa ji nee lii ci moom euh, xaw ma lan état Sénégal lii mais loolu du wax ji xam wax ji lan la. Mhm. ana preuve yi. une journaliste man damay jékki ma ne waa mec euh, xanaa wala affaire judiciaire xam nga noonu lañ koy <laughs> enquêté. mo ah, ana preuve yi. yi mooy kii def na lii. Mhm. viré nañ ci compte am un million cinq cent mille euros gis nañ ko banque tel. jour la fa yegg si. nii la ko retiré parce que enquête lañu jox na ne samay samay compte bancaire. yób yóbbandañu leen ko. Mhm. gisuñu ko. ay athlètes yi ñuy wax. Mhm. dem nañu Russie enquête ñu. Mhm. donc nag ñu bàyyi li wër procès bi xam li ñuy li tax ñu am projet bi. ñu dugg ci biir. ah mooy loolu c'est génne élément de. jeex na jeex na surtout que banque yi ñu am ne fu ñu am compte ay banque française la. d'accord ma dolli ko ci. d'accord mbokk yi seetaan euh, Dakaractu yéen a ngi si seen émission Actu Débat ñu dalal Papa Massata Diack. alors Papa Massata Diak, euh, si sa conférence de presse bi nga amaloon euh, dégg nañ euh, que le président de la République a été touché dans son honorabilité Qu'est-ce bëgg wax ah parce que juge français li a bind dem ba bind le président alors que amu ci benn preuve c'est c'est une accusation fallacieuse et mensongère ay Quand fen yi neen la kooku man su ma noon état Sénégal Mais leen di jox wekk ko fen ndax amul preuve ci li muy wax